wax lépp bi ñu renvoyé conférence su bi mais avant ñu koy renvoyé dama am sama wëllëre bu baax mu yónnee ma ni ma conférence su Gàmbi bi di buuma sañoon nga bañ ci aj sa yaakaar ndax gouvernement bu Gàmbi ak gouvernement bu Sénégal waxante nañu ci conférence bi te lay seen yéene rafetul kon nag ma bañ nga aj ci sa yaakaar te du mën a nekk moom wëllëre boobu bi ma waxee loolu ma ni ko nag baax na <laughs> ñu teg ca ñeenti fan kilifa réew ma génn def déclaration wax ni interdire nañu bépp manifestation mais lii lay reeloo mooy lu mel noonu kilifa réew wax ko ci réewam ni interdire nañ ko ba noppi le lendemain waa ministère de l'intérieur téléphoné sama responsable bi nekk foofu naan ko waa seen conférence bi fu ngeen ci toll. parce que gis loolu. responsable bi ni ko ah ma defe ne yéen yéenay jël seeni règle wax ni manifestation dootu fi am waaye may itam ma ma def ca lu simple rek ma woo responsable bi ba mu ñëw fekk joxoon nañu ma seen autorisation ba noppi ma yëkkati kayitu autorisation bi jox ko njaboot bi ni ko demal joxal ma ko ministre de l'intérieur lu jeex tàkk foofu lu ñu fay wax newatu fa c'est très clair waaye gis nga góor gi li ko intéressé yépp wax na ko dafa wax ni gaynde dafa yónnee bukki fekke bukki booba yafal na boppam ba defe ni waratula nangu dara nee na gaynde yónni ko munu ko jaay ah, gaynde fi mu ne nii daal di doxalati kenn yónnenti moom sa ci dara nee na gaynde ni patt rek daal di ko fay romb dem fekk bukki bu ko mat ñaar mu fàddu ko ñëw indi ko ba ci kanamam mu tàllal ko mu tëral ko nee na bukki bi gis bi ñu tëral yëg ni moo ko ëpp fuuf mu ni ko nijaay gaynde noo def ko tëral lu toll ni mu ni ko pourtant dama doon fo rek dee na mu ni ko ana yónnent ba <laughs> ngay leen ni ko waaw ah. ah. pour wax la lépp loo naw sa bopp walla nga yóbbu fa sa bopp ba defa ni nekk nga lu tax kenn waratu la sant dara booba gaañ nga sa bopp muy baatu imam Sàmba ba rekk fu waay yegg waaye yeggoon na fa teyagul waaw moo tax gis sa bopp baaxul damay wax ni li wolof yi di wax erreur gënu ko rëy dootuma sàmmi mbaam sama gëléem màgg na loolu njaboot du ko wax parce que moomul mbaam moomul gëléem du dëgg kon nag duma sàmmati mbaam ndax sama gëléem màgg na ah, waaw ki moom gëléem moom mbaam kay mooy seet ku muy yónni rek bu teyee mun la jëlal mbaam jëlal ëllëg mun la jëlal gëléem mais jëlal parce que problème bi nekkul ci mbaam bi walla ci gëléem bi mu ngi ci ordre bi mu lay jox waaw boo ko nangoo rek yàlla defal la sutura ci lu ne wa alqayna ala yi jasadan summa anaab aaya bi aaya bi aaya bi mooy summa anaab suleymaan ba ko yàlla joxee lam ko jox jinne yi nekk ci service nit ñi nekk ci service ngelaw yi nekk ci service safara yi nekk ci service mais dem na ba yëf yi bëgg koo yóbbaale ba mu defa di li mu am moo ko may boppam tax nag mu commencé wane boppam Souleymane en tant que Malik bañ a wane boppam Souleymane en tant que nabi yàlla it pour wan ko ni ko mala sedd naka la jóg tuuti rek mu jël beneen nit toogal ko ca trône ba mu dellu si ñëw fekk keneen toog ci trône bi rek mu dar bopp ni coup nañu ma fekk kenn coup d'état wu ko yàlla def imagination rek ba mu mel ni dafa gis keneen ci kaw trône bi mu daal di sukk ci suuf waaw wa laqad fatanna suleyman wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anaaba ah yàlla nit a matul rek waaw nit rek waaye kenn warul xëccoog yow waaw kon nag maa ngi baalu tey di la wax ne fa ma dëjoon duma fa jóge ci mukk te duma weccee li nga ma sedd nag ak leneen waaw moo tax gis nga gaawantu gis sa bopp waxul wa raakibani alximaara moom Maodo ci yonent bi ba mu jógee ca isra ba ak miraaj ba wàcc ci suuf iblis di ko wër ni kii de fa mu dem ku fa jógee yàq la dina yomb muy dem di seeti yonent bi gis ko mu war mbaam mu ni kii di mënalu ma ko dara ndax fa mu dem am nañu lu ñu def ci moom moo tax nag baatu rafiu darajaat masalatu makaanatin la masalatu makaan bu yàlla ne diw di yëkkati naa dara darajaam bul ko xool ci fauteuil bu mag buñ lay toogal ñi ci des toog ci bu tuuti bul ko xool foofu yàlla ku mu yëkkati sa daraja ku lay tuutal dootul am ku lay toroxal dootul am dafa tolloog li arab yi wax seetu bu tuuti ni mu toll rekk la lay wane sa bopp xaw ma ndax dégg ngeen wax bi walla déet seetu bu tuuti ni mu toll rekk la lay wane sa bopp waaye boo bëggee xam sa bopp noo toll fekkal seetu seetu bu mag nga taxaw ci kanamam mun la yaa ngi waaw moo tax bari na lu nit ñi di soow daf lay reeloo sax coow lii fii sama benn jaboot daf ma yónnee message mel ni kuy jooy ci message bi mel ni ko ah, lan la mu ni ma dañuy wax ci journal yi ni da nga demoon salon d'honneur ñu ñu aaye la ni la doo fa dugg ma ni ko loolu ñi fi nekk ñëpp seen maamaat sax ñemewuñu ko seeni maamaat laa wax ñemewuñ ko te bis bu ñu ko defoon waxuma la salon d'honneur mais même salon présidentiel bi dootul am man ko man nag yëguma fi ma daan jaar daal jaar naa fa oto bi ma daan yóbbu yóbbu na ma ba ci passerelle bi dugg naa sama avion ba ma yeggee ñooñe yónnee nañu ma oto bi ma jël si ma dem sama hôtel ba ma paree di ñibbisi si fa ma jaar la jaar ñëw ba Dakar gii fekk fi oto bu rafet mu ñëw jël si ma nam ma daan jëlsee ma ñëw taxaw di bëgg a dem borom grade yépp génn ci seen bureau yi tàllal seen loxo ne ah doo dem te ñaanoo nag waaw ma ñaanal leen dugg ci oto bi daal di ñëw waaw fekk sama oto ngi taxaw mu dàq seen bos waaw bañ ca jógee nag coow li bare ministre des affaires étrangères saisir na colonel Cissé bi ko dama bëggoon ngeen ñaanal ma rendez ci sëriñ Moustapha ma expliqué ko parce que li am ñu di ko soog ña ko def ñoo ko defal seen bopp waaye ñun sañuñu loolu mu ne mais fekk na bi ñu ma koy wax fekk na boobu may may jëlaat pour dem tukki mais cette fois-ci bi laa doon dem te jëluma bi